nee na ñu ngi doore suñu wax ci feddali ay nuyoo ak suñuy ziyaara ak suñu taalibe ak suñu doomu ne ci suñu kilifa bu baax ji muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké خليف جنرال كل مريض واي خليف جنرال كل في جولي نادي ديال ديال زياره وات باخ باخ ماتش لي تي تور ساتورندو خاريتام موي موسي لو بريزيدان باسكير جوماي داخر ساي ne bi mi ñew ba bi mi garé fi ne mom la doon waxtaanal ci téléphone bi donte bi mu ci ñaari fan la. mais donte bi mu jógee ci yow ak léegi ñaari fan la. waaye insiste na bu baax a baax. ni ko. mais mu jottali laab nu yomb baax ma. ak mbégteem. ci niñ ko dalalee fii ba ci dem. niñ ko fi terale niñ ko fi yaatale. waaye ni ñu dalalee di jàllale ci mais di jàllale suñu ziar ci turu gouvernement bi yëpp nag. naam li naam li mu àndal ci ay ministre lu mat juróom la. waaye dañoo représenté mboolem gouvernement bi. waaye bi nga xam ni moom mi moo ko jiite. suñu teewaay fii nag. mais yu bëree nañoo wax ci qualité yu bëree bëri bëri. waaye dafay feddali solo si nga xam ni solo si nga xam ni lii ñuy célébrer tey am na ko ci nun ndax euh, màggal bi ndax màggal bi def nañu ñetti conseil des ministres yoo xam ni ne président daf ko daal di joxe ay ndigal bépp ministre boo xam ne war na ci am cër muy ministre de l'intérieur ministre de l'assainissement ak ministre de la santé ak mboolem seen ministre yëpp nee na loolu day wane importance bi nga xam ni jox nañu ko màggal bi nañu ko bés nee di dellu di sant yàlla bu baax làq bi nu fi géejee ak léegi def na weer wala lu ko ëpp tuuti waaye bi si privé bi ak doom bi moo ñëwoon ziyaar tey ñëw nemmeeku si ñëw sàkku si ñaan waaye ñëw buy ci ay conseil nee tey nag ñu ñëw ci cër gi nga xam ne yàlla suñu borom jox nañu ko muy premier ministre bu Sénégal nee loolu bu ñu ko waxee nag li ñuy njëkk def mooy sant yàlla bu baax ndax nëgë ni si daaw màggal gi ñoo ko seetaan ci télé tëdd ci lal hôpital nee loolu la amoon ci màggal gi daaw waaye amoon ci lu ëpp solo loolu yëpp mooy ci jamono ji daal la ñoom ministre Aïda ak Habib Sy ñëw fii ziar ci la Mbacke bi ñu fi jógee sëriñ bi yónni leen jox leen benn booy tàndarma ni leen dem leen seetal ma sama doom sama taalibe ni ko ñaan naa ko digal naa ko mu jël ci tàndarma ji te dakkal grève de la faim bi mu def mi ngi woon tombe jamono ji ñu toll daaw ndax gën saa gudd ñeent wala juróomi fan moo tax diggé mo màggal bi daaw kon loolu di lu rëy rëy lool ci ñun lu ñu dul mës a fàtte ndax jamono ju ne ak li mu méngool ak li mu tollool da ngay a xool càmbar taxawaayu kenn ci nekk ci nit ñi ndax foofu tëddoon ne xalaatoon na ni ñëpp fàtte nañ ndekete Mbàkke suñu kilifa gu baax kii toogul benn fan toogul benn guddi ne ta xelam jëm ci suñu jëmm ji mu def ci li ci war a def lépp ba ci zaahir ak ci baatin lu ci nit ñi xam ak luñ ci xamul luñ ci yëg ak luñ ci yëgul waaye li ci ëpp solo nee nga yónni ay nit ci foo xam ne dañ doon tere kenn ñëw fekk si ko fa. daal di ñaan ñu bàyyi leen ñu ñëw fekk ko fa. ñëw jottali ko ba taaxal bi bàyyi ko ci yow. nee na loolu di lu rëy ci ñun ba. kon lan ciy jàngate. mooy ci àdduna. lu door rek dana jeex. te lu waay muñ ngir yàlla ak mu mën a jeexe ci bët nit ñi ak nee ndam rek lay doon mën na jeexee noo xam ne nit ñi dañuy jàpp ni mën na jeexee noo xam ne nit ñi dañuy jàpp ni échec la nee fekk ca yàlla succès la nee mën na doon safaan bi tamit ndax borom bés bii keroog ba fii ba muy jógee fii di dem waaye ñi ko ñëpp am nañu jàpp. te na ne ñi ko wóorul ñëpp am nañu njàpp. waaye moom day amoon na yaqin. ni sacrifice boobu muy naa naataange rek ci tëdd. nee na ndax tey Touba du naataange naataange am kon. nee jégalewuñu suñu bopp foofu sax de. waaye nag jàpp nañu ni. ku jóg di dox. te jàpp ni ngay dox. lu baax lu ak lool ci mën a te mu ko rek ndam am solo nag mooy di ñaan yàlla suñu borom nee te di leen ñaan bu baax ngeen ñaanal na ni koy ñaanal bis bu ne ñu koy waaye di gën a sas ñaan rek bu na lii fi jaar yëpp. naataange topp ci. Que é Sénégal yëpp. pour réew mi yëpp. ba ñëpp que ko. te yàlla Que ñu ñu fekk ko yàgg yu bari. mais eh, di que kàddoom nag. ci Que é ji mu am ci dëkk bu sell bi que nee na président Que é ñëwee ba ci démb rek waxaat na ko. que mënuñoo ba ñàkk a bañ am yéene ju rëy bu dul dara yi bu yàlla sàkkee ab dëkk boo xam ne su dul bu jiitu itam moo ci tegu ku yàlla dénk réew mi nga ni damay defar réew mi ne boo sàggalee dëkk boobu réussi li rax ci dolli nag noonu danoo am contrat bu ñu am ak Touba taxawaayu waa Touba. ndax taxawaayu waa Touba. ci at yi nekk suñu wet. nekk suñu wet. yéen xeexal ñu. ba àddina gis ko. ba bi yëpp gis ko. nee loolu kóllëre la goo xam ni. nee lu koy fecc de di guddi ci ñun musuma soobee yàlla. moo tax ci suñuy programme. yéene gi ñu am. ci defar. ci li nga xam ne mooy aajowaat. ci li nga xam ne mooy aajowaat dëkk bii. mooy aajow borom dëkk bi. mooy aajow borom dëkk bi. kenn mënu fee def dara fii de kenn mënu fee def dara diisuñu ak bi. ba xam lan mooy ay priorité noonu lañ ko moo ñaalee dugal ko ci programme te bu sooba yàlla. ci weer yi di ñëw. ci at yi di ñëw. kenn ku ci ne dina ci teg bëtam ci lu jëm ci liggéey kon. mën nañoo bañ a guddal wax di ñaan yàlla suñu boroom màggal ren gii ñu dund ko ci jàmm ak dal di mas wit ñi nga xam ñi nga xam ni itam fii ci biir Touba am nañu tuuti loraange ci loo xam ni eh, eh, loo xam ni mi ngi jógee ci ndox mi am nañu yéene am nañu yéene nag. programme yi ci programme yi ñuy développé. fii léeg ay jamono. fii léeg ay toog naan. naan ndox ma nangu nay kër ci Tuuba. waaye nag ñoo ngi leen di masawu bu baax. am na instruction yi ñuy jox gouvernement bi. indi nañ fi lu xaw a takku ci ay matuwaay. am na lu war a ñëw tey jii sax. li ñu ci doon wax léegi ak honorable Serigne Cheikh Touré ak monsieur le maire. waaye luñ ci waaye luñ ci mën rek nag. pour woyofal mbir yi. pour woyofal mbir te continuer ci liggéey boo xam ni. mooy saafara mbir mi définitivement. nee na bu soobee yàlla danañu ko def nag. kon di ñaan yàlla it. kon di ñaan yàlla it. màggal gii. màggal gii. lépp loo xam ni. ñoo ngi ko fi def. ci yiw. ci yiw. jàng. jàng jàng xaside yi. zikri. lépp. yàlla na ko yàlla boole. nangu ko. mu doon xéewal ci réew mi. mu doon buntu bu beef. ci li ñu bëgg nun ñëpp. mooy. développement réew mi. defar ko. ne ba ñu ñuy ñee feneen. moo xam ci arab la. wala ci sinwaa la. wala ci nasaraan. ñu am lu mel noonu wala lu ko raw. mais ñu am lu mel noonu wala lu ko raw. lu mën a nekk mais loolu day lu mën a nekk la. mag ñi ñaan nañ ko. mag ñi ñaan nañ ko ci réew mi. ñaan nañ ko te seen ñaan nangu la. nee la ca des nag noonu la. ci takk suñu digg. ci liggéey ci liggéey. ci organisé wu. ci discipliné wu. kon noo ngi dellu Mbacke. nee di la sant bu baax Mbacke. nee di ñaan yàlla suñu borom yokk wér-gu-yaram. yàlla suñu borom bàyyil na suñu kanam ay ati ati at mu uuf nu di ñu teete di ñu digal di ñu ñaanal di ñu orienté kon noo ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu